Amérique yaa ngi xeex Amérique yaa ngi xeex sànni na valise bi sànni na valise bi Amérique yaa ngi xeex moom la ko jël si taal na oto ba sànni na valise bi oo waa ji lu ñu jot ak moom xeex bi sax am na Amérique dem na taal na oto ba dem na yoonam wala bu jigéen ba ngay jooy il y, a, il y a le petit là aussi.